ليكن بكن سرمدا وجل مسير يساه جوف الفرا للورى مصر المهارين صرفت هاجي لمن يخدي جميع بكن wa atawasala bil mamduhi fi nooni salaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV bu ngeen déggee xasida yi jàll léegi mu mel ni am na lu xew loolu mooy lan xew-xew bi mooy màggalug daaru salaam kan lañ koy amal mam Cheikh Anta Mbacke borom daaru salaam ak gaawaan fan lañ koy amalee fii ci Touba Argentine fan la otel baawaan kañ la mu ngi dëppoog la 14 août bi nga xam ne moom la ñu jub si ci ndigalal ki nga xam ne mooy jëwrinu maam Cheikh Anta fii ci Touba Argentine ñu gën ko xam ci Serigne Mor Talla Sall kon bu ko defee du ñu def lu dul yëkkati kàddu yi jox Serigne Mourtala Touré mu waxtaan ak mbooloo mi soññu leen bu ñu fa jógee jox ki nga xamante ne nii mooy Serigne Khadim mbay bu ñu jógee ci Serigne Khadim jox jëwrin bi nga xamante ne nii mooy jëwrinu Daaru Salaam muy ki nga xamante ne mooy Serigne Mor Talla Sall ah nekk fii ci Touba Argentine topp ci gannaaw Serigne Yankoba mi jëwrinu Serigne Touba kon mbokk yi programme baa ngi noonu du ñu def lu dul jox ki nga xam ne mooy Serigne Mourtala Touré kàddu. mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di jël nuyoo bi di ko teg ci sunu jëwriñ ji nga xamante ni bii moom lañ fi nekkal muy Serigne Yankhoba Gueye waaye di nuyu mboolem jataay bi nga xamante ni bii dañ ko doon defal jataayu Seexul Xaddim di ñaan. sunu borom subhanahu wa taala mu nangul nu ko te fulal ñu ko di siyaare sëriñ Mortal Sall mi nga xamante ni bii moo feggoog ñun di njiitul daayira bi nga xamante ne bii mooy daayira Daaru Salaam mu mel ni kon dafa am bis bu ñuy waajal mu mel ni bis boobu jàpp naa ni wóorta nekk bis boo xamante ni bii bis lay doon boo xamante ni bii bu ñuy fàttali nit ñi lay doon waaye bis la boo xamante ni bii saa bu delsee dañ ciy fàttaliku jëmm ju tedd muy kan muy maam Cheikh Anta borom gaawan mu nekkoon jëmm joo xamante ni kenn la woon ci Seyxul Xaddim ndax doy na sëkk ñu ne maam Cheikh Anta Serigne Touba doy na sëkk ñu ne Serigne Touba maam Cheikh Anta. te ku ne xam na ni lépp lu maam Cheikh Anta am ci Serigne Touba la ko jële muy dërëm ak ngërëm ñu bari nag dañuy wax ni dërëm ak ngërëm waaye ngërëm a ëpp doole dërëm ndax dërëm sunu borom dafa wax ni ak ragal yàlla sax soo ko defee sunu borom day ubbi ci yow bunti xéewal ak wakkirlu soo ko defee ci moom dalay ubbi bunti xéewal wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuh ak ragal yàlla boo ko jox suñu bor mën a laa jox wërsëg man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan wa yarsuqhu min haysu laa yaxtasibu julli ji nga mi nga xamante ne bii suñu borom moo ko sant ñun képp ku ko fonk saxal ko suñu borom dana la jox wërsëgu yaatu waaw mu ahlaka bi salaati wasabir alayha laa nasalka risqan kon dërëm ak ngërëm loolee rek ngërëm laa ëpp solo ci dërëm boobee kon ngërëm lu Sëriñ Tuubaa la am ba am lii mu am bañ koy màggalal fu nekk ci kaw suuf mu mel ni kon mbooleem taalibe yi nga xamante ne bii dañoo nekk ci dëkk bi fii ci Argentine ñu di ko def euh, dëppoog la 14 août bii nga xamante ni bii moom lañ jëm di ko defee ci barab bi nga xam xamante ni foofu lañ taamoo di fa def bisi Serigne Touba yeeg njabootu Serigne Touba yëpp muy hôtel Bayonne di ñaan sunu borom moom mi nga xamante ni bii mooy yeggale ab jaam ci ay mébétam yàlla na sunu borom yeggal sunu mébét ca bis boobee te lépp loo xamante ne def nañ ko fa ci alxuraan muy xasida muy salaatu ala nabi muy istixfaar yàlla nañ suñu borom nangul ci barke maam Cheikh kon ab soññee la rek ci mboolem taalibe yi képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu eh, ñi ngi lay soññ ci bis boobu yi nga xam te ne bis la boo xam te ne bis bu ñuy fàttaliku maam Cheikh la di bis bu ñuy yeesalaat suñuy xol suñu diggante ak moom waaye di bis la boo xam te ne nag bisu alxuraan la di bisub xasida di bis boo xamante ne bi bisub Seexul Xadiim bu ñu waxee Serigne Touba nag wax nañ mbooleem ko aju ci moom muy doom yi muy rakk yi muy seex yi kon bis boobu ñu ngi ci soññ mbooleem taalibe yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi ñu teewe ci bis boobu ànd ko ak pas-pas akuk taalibe akuk dëggu ca it ni ma koy faral di waxee rek dafa am bis yoo xamante ne bii li ñuy wax ne waa nga de sikra saali am na tanzila tanzilu rahma am na bis yoo xamante ni sunu borom dafay wàcc yërmaan ak xéewal kon képp koo xam te yaa ngi jug ngir di ca dem xoolal bu baax sa jëmm xool sa comportement bu baax na nga cee doxe ak saw doxalin ba ba nga egsi ca bis ba ndax bis la yoo xam te ni ku ci am ngërëm dootoo tàqalikoo ngërëm waaye ku ci ñàkk ngërëm yi dootoo am ngërëm ba faw kon bis la boo xam te ne nañ ko waajal ci ak sell waajal ko ci ab yar waajal ko ci ay teggin ndax ab yar ak teggin lu mu mayut nit ki mënu ko koo xañ kon ñu bàyyi ci xel bu baax ñi ngi lay sant Serigne Mortal yow mi nga xam te ne bii yaag njaboot gi nga xam te ne bii yéen a fi nekk taxawal ko di ñaan sunu borom yal na leen taxawu ci barkeb maam Cheikh Anta di siyaare mboolem taaliba yëpp Serigne Baye Ibrahima mbay Serigne seen Baye Fall ak mboolem ñi nekk ci ci salle bi ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di sant bu baax. di jéggalu ci kàddu yi yëkkati ndax suñu jëwriñ rek ñoo fi nekk waaye ab soññe dafa mun te ñàkk te e, comme ni ko ñëpp waxee rek muy bis bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal muy la 14 août tombeeg altine incha allah taala e, ñu ci soññ suñ bopp di ci soññ mbooleem ku nekk Argentine rawatina yéen ñi nga xam ne yéen nekk capital e, yàlla danañ cee yemale tey ci ndax ñun ci àll bi lañ nekk waaye nag bisu maam Cheikh Anta day sunu bis ndax Serigne Afia Mbacke ak maam Cheikh Anta ñoo bokk benn waajuru góor ak wu jigéen te kon bu ñuy woote ci lu mel noonu day sawar ñu ñu jël sunu kàddu jàllale ko ci euh, ba mbokki taalibe yëpp yëg ko ñu ci woo mbooleem koo xam ne yaa ngi Argentine te nekk ab taalibe ak ku di julli rek euh, ñu jàngal ko alxuraan ak salaatu ala nabi ndax lépp woote bu ñuy woote rek yaakaar naa loolu moo ci ëpp solo muy jàng alxuraan ak euh, salaatu ala nabi ak xas xaside ndax yaakaar naa maam Cheikh Anta ci julli la wàcc liggéey kon yaakaar naa ne dafa topp suñu borom ba suñu borom jëlee ko ci ak jaamoom kon nag bis boobu képp ku cee demit na nga ca demee worma ak yar ak teggin ak maanaam jàngal ko alxuraan ak xasida yi nga xam ne moom la sëriñ bi bindoon tem toppoon ci moom ba am ngërëm li mu am ndax ngërëm ci la lépp xaj kon yàlla nañ dajee ngërëmal maam Cheikh Anta Euh, ci bis boobu ak bis yi di ñëw ñu fekk ko ay déwéni déwén asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi siyaar sëñ Mortalla Sall mi nga xam ne mooy jëwriñ ji di ñaan mbooleem ku fi nekk rek suñ borom may la wu gudd ak wér ban man koo fekk ay ati ati bi barakati cheikhul xadim billahi mina sheytan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin suma salaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maolana muhammadun lil makin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax a baax kenn ku ne ñu di lu nuyu sa tur ak sa sant di leen siyaara bu baax di leen baalu te di leen baal di leen fàttali bis boo xamante ni bii bis bu rëy la ci yoonu murit ñu di ko wax màggal daaru salaam jamono yii nag ñu toll ci di ko waajal ba taxoon tey jii ñu di ci def am ndaje ci bis bi nga xam ne ci la Sëriñ Sidi Moxtaar joxe ay ndigal ngir ñu jàng ci alxuraan comme ni mu ko waxe noonu lañ ko doon defee tey ñu di ci profité di ci jàllale suñu màggal gi nga xamante ni bii mooy màggal daaru salaam ndax màggal daaru salaam moom kenn du ko wax kenn ndax maam Cheikh Anta digganteem ak sëriñ bu mag bi kenn ku ne xam na ni mu demee ndax bokk na ci kimtaan yi nga xam ni sëriñ bi jëkk na wone jëkk na ko wone ci maam seex sëriñ bi bokk na ci dëkk yi mu jëkk a sanc muy daaru salaam moom la rafaatale maam Cheikh Anta boole ko juróom dong ak juróom-ñeent bi mu defee loolu tamit wuy dafa continuer di jokkoo ak moom ci yeneen fànn yu bëree bëri yoo xam ne xam naa yaatal lépp du xàcc bis bi waaye képp koo xam ne bëgg ngaa xam kan mooy maam Cheikh Anta kon da ngay ñëw ca bis ba. bis bi nag incha allahu taala ñoo ngi ko fas yéene taxawal fii nii la 14 août ak bisub samedi incha allahu di ko defee fële nga xam ni fa la mbokki taalibe yëpp mii na defee tombé ak bisub alterné waaw la 14 août tombé ak ñu fas ko yéene defee fële nga xam ne moo di hôtel ba nga xam ne farañ mii na defee eh, lenn ci programme yi li gën a bëri ci programme yi ñu amal muy hôtel Bawen Kassaawu 360 farañ koy defee programme ba nag incha allahu taala moom nii la fas yéene demee maanaam bu ñu xëyee ci suba gi incha allahu taala li ñu njëkk def mooy dañuy tàmbali jàng alquran ba 2 heures bu ñu demee ba 2 heures ñu daal di indi maanaam bernde yi bu ñu jógee ci bernde yi tamit incha allah ñu daal di taxawal maanaam jàngkat yi nga xam ne dañuy yëngu ci rajas ñoom tamit ñu jox leen seen wàll ñu daal di bu buñ jógee ci loolu dinañ dugg ci li nga xamante ni mooy kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci capital bi yëpp ak li ko wër ñoo ngi ciy woo kuréel yëpp su ko defee ñoom it allah ñu daal di continuer li des ci ngoon gi ñu demee ba ay 8 heures 9 heures incha allah ñu ñu ñu dugg ñu indi maanaam conférenciers yi incha allah waxtaan yi su ko defee ñu xamle kan mooy maam Cheikh Anta ak moom lu mu def ci yoonu murit loolu incha allah moom tomb boobu lañ fa bëgg a yi incha allah léegi ñu du ci woo maanaam mbooleem taalibi yi nga xam dañoo nekk ci réew mi yëpp foofu waaye nekk rek ñoo ngi la ciy woo rawatina suñu mbokki taalib yi nga xam ne ñoom lañ ànd xam ne ñun dañoo teg ci kanam rek waaye wax dëgg yàlla du dara loo xam ni eh, maam nekk na ci ñun ba tax ñu teg ñu fi ñoom ñoo baax rek waaye ñoom ñooy suñuy jëwriñ moo tax nag kon daal bis bi incha allah tamit fas nañ yéene bernde bu baax ndax màggal daaru salaam moom ku tudd ku ne di nga tudd bernde kon incha allah bu baax baax di ci woo ñëpp di ci fàttali suñu bopp di leen ko defee mboolem fu waay nekk réew mi rek ñoo ngi la ciy woo ci bis boobu incha allah taala ñoo ngi ko fas yéene amal nag le 14 août 2017 incha allah màggal gi nag boo gisee ren ñu yóbbu ko foofu sax fii lañ ko defee woon daaw waaye dañoo dem ba gis ni dafa xat lool ngir ñu defee ko waat fu fii mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ñun ñëpp maanaam daje waxtaan daal leen ni daal leen comme maanaam xajuñu fii nañ ko jéem a yaatal su ko defee nag kon loo tax ñu bokk koo yóbbu hôtel Bawen xam naa ne comme waxtu bi na te gaa ñi mel leen yàkkamte leen xewal yi dañuy tënk foofu rek incha allah ba bis ba su bis ba incha allah moom ku kon noo ngi siyaar ñëpp di baal àq ñëpp di leen baal àq di ñaan suñu borom tabaraka taala mu yóbbuñu ci bis ba ñu tàmbali ko ci bismillah rahman àggale ko ci alhamdulilah rabbil di gërëm suñu mbokk mi nga xam ni moo yor maanaam eh, suñu télé bi muy suñu góor TV moom ñoo ngi koy gërëm ci liggéeyam bu rafet wax dëgg yàlla bi mu tàmbalee léegi yàggul waaye ñoo ngi rafetlu ay liggéeyam bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom yéene ji am suñu borom àggaleel ko ko moom moo xam suñu àggaleel ko te gën ko rafetal te ñun ñëpp ñu fekk ko tatal ko kon yàlla na yàlla defal ñu saahadut daani xaqan bi xurmati quranu karim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi noonu ngeen déggee kàddu yi rek noonu la demee ñu dégg ko noonu kàddu yi am solo yi Serigne Mor sàll Sall yëkkati jëwrinu Daaru Salaam kenn ku nekk xam na ne mam Cheikh Anta woykat bu mag ba na mu ko waxee mooy Serigne Moussa Ka nee na soxna Anta Ndiaye wàcc na am na yaaram am ilimaan gàlliwuloo ci maaram loolu rek daanaka doy na xista ci li nga xamante ne nii moom la ñuy toftal ci mam Cheikh Anta kon mbokk yi ñu déggandoo ko noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.